m'a dit l'autre jour mu ne ma léegi de réew mi kenn ñemeetul wax ku wax rek ñu saagal dafa manqué démocratie ma ne ko déedéet manqué wul démocratie dafa manqué ñu am fitu wax lu ñu war a wax lan mooy dañ laa attaqué lan mooy dañ laa wax lu ñaaw et alors affaire bi si lal ba la lal ba tëdd nelaw yeewu tiim sa bàmmeel ba yàlla def lu ko damm surtout ci ku ne da ngay wéet si sa bàmmeel kenn du la accompagner donc dëgg du tax du amul lenn luy tax nga mën a toog gis dëgg toog si parce que da am looy ragal da ngaa xam su suba deew a gën a ñaaw jeew a gën a gaaw te mën na la dal à tout moment sooy ragal ragalal loolu ak loo fay yóbbu loolu daf ñuy jox ñu enclanché ci deuxième point bu jëm ci coalition de l'opposition ba moo defee sama post nag ñu bëri nee nañ ah est-ce que piraté wuñu compte bi ah Thierno yow de xamee wuñu woon loolu ah et cetera lu yëngu lu ko yëngale ko ëpp doole lu ne rek su jotee ñu def ko su jotul jotul mun nañu wax ne ne ah moom day Euh, kenn du ko dégg ah parce que jotul rek lu waxantu li am temps yi ngeen koy dëgg bu jëm ci coalition opposition tey bésu ñambaas la ñambaas maanaam su doon sër la ñëwuñu pour lem sër bi teg dañoo ñëw pour ñambaas sër bi su dee tubéy la ñëwuñu pour lem tubéy bi teg dañoo ñëw pour ñambaas tubéy bi pour que mu gën a leer si bopp nit ñi ndax mu mu jot parce que dañ ma ne jotul am na ñu comprendreul li nga bëgg a wax c'est quoi li ma bëgg a wax leer na ñi may waxal leer na dama ne Khalifa Sall Ousmane Sonko Karim Wade yéen laay waxal xaw ma si ban kamera ngeen may xoolee yéen laay waxal li tax ma wax loolu parce que damaa am cër si ñoom amul seen benn partisan bu ma ëpp cër si ñoom te dinaa lay wax lu tax xalifasal bokkuma ak moom parti mais bañ ko jàppee bu ko jàpp jàpp ko dugal ko kaso ak li si am yépp dama taxaw temm xeexal ko taxawu ko li ma leen di cité nag dina bëri si benn par benn waaye xaaruma si woon dara te dinaa leen wax lu tax defal nañ ko ñeneen avant te dañ kon ni di ko def pour suñu réew ba ñu gisee ne injustice bu am si procédure bi mu nekk député defuñu levé wuñ immunité parlementaire et cetera bind nañ si def nañ sax ay live Facebook ay live Facebook pour leeral article yu nekk si euh, règlement intérieur ak li tax ñu war a tey aujourd'hui taxaw xalifa Sall suñ demee plateau au lieu ñuy wax suñu waxu par suñu waxu mouvement suñu waxu toujours dinañ si dugal injustice bu am. def nañ émission boo xam ne c'est une émission de grande écoute maa ngi koy xoolaat keroog 30 minutes yi daanaka si Khalifa Sall lañ doon wax bañ ko tëjee il y eu. Euh, la volonté de le remplacer si mairie de Dakar parce que amoon na ay tractation si suuf pour que Khalifa Sall non seulement dañ koy tëj si kaso bi waaye mairie de Dakar dañ koy foqati téeku amoon na ay candidats yu ñëwoon seet si ma expliquer ma situation bi ne ma ñoom dañu bëgg a jël mairie bi joxe seen argument ma réponse a été constante le candidat de Khalifa Sall sera le candidat de Thierno Bocoum dañ ne Soham Wardini la man mosuma yor numéro Soham Wardini boobu xaw ma ko léegi xam naa ko suñu maman la mais xaw ma ko woon dañ ne Soham Wardini la maa ngi naan ah waaw waaw brièvement xamu woon sax kan la waaye mobiliser wu la ñu def ñëw ñu dugal ñu si benn salle ma dem toog ak ñoom si salle ba voté jot ñu voté ñu ñibbi. donc kooku dafa am lu ñuy xaar si moom dafa am lu ñuy xaar si moom Khalifa Sall Ousmane Sonko ñu bëri ñu ñenn ñu bokk xam nañ suñu relation ak moom ba li ko fi dal parce que nit nag ñaar la am sa intégrité physique sa image ak sa position muy sociale muy politique muy et cetera ñaar yëpp lañ ko nangul yemuñu si nangul ko ko de dañuy yem si fësal ko te bokk si ñu njëkk déglu leen ma dañ ko fësal bokk si ñu ko njëkk ba mu defee déclaration këram ne gars yi dañ ne dañ koy jël si dañ koy jël si su ñëwul dem leen jëli ko dégg ngeen ko yéen ñëpp bokk naa suñu njëkk këram toog si biir kër gi lacrymogène yooyu ngeen doon dégg dugal nañ lacrymogène kër Ousmane Sonko report ngeen koy reporté gaañ nañu diw diw blessé neen Assane Diouf ba muy blessé sama kanam la diw et cetera maa ngi woon si biir kër ga te ba may ñëw sama soxna démb mu ngi may rappelé benn biir parce que da waxtaan ak sama yaay ne ko ñun de lu ñu si gën a sonn mooy soo yeewee ne maa ngi dem mais mun na am ñu jàpp ma mun na am du ma ñëw ba ma fay jógee jour boobu loolu laa ko wax maa ngi dem waaye mën na am duma ñëw ñu jël matuwaay yuy tax ma mun na am duma ñëw parce que suñu forcé woon duñ ko nangu amuñu droit c'est un député nañ dem lever par immunité parlementaire on était là ba ñu waxee dañu mobiliser pour ñu défendre ko soo gisee ba ñuy tudd list ba list ba ñu ba ñuy créer M2D liste ba agir de Thierno Bocoum lañ njëkk a wax membre fondateur de M2D pour taxaw Ousmane Sonko parce que pour man c'est quelque c'était quelque chose bu ñu war a def ñu romb si parce que am na yeneen yuy ñëw FRN mu ngi fii et cetera mais au moins na nit ñi mobiliser wu parce que mënuñu seetaan Macky Sall mu def lu mu def Karim Wade def lu mu def Khalifa Sall ñuy seetaan muy def noonu Ousmane Sonko c'est une question bien que dugguñu ci dossier dugguñu ci ñoom ñett benn dossier mais principe yi dañ ko affirme wax ko mu leer membre fondateur de M2D ñu jóge ci loolu mu ñëw fii dégg ngeen li ma wax avant loolu ñu commencé def plateau yi ma ne leen ku ñu jàpp c'est pas n'importe ku ñu jàpp c'est le chef de l'opposition man maa ko njëkk a wax fii pourquoi ma wax ko parce que man maa teg ay règles objectives ma ne le chef de l'opposition dans une république boo xamante ne c'est le système présidentiel mais c'est le second moom mooy nekk chef de l'opposition le second su demee rejoindre le pouvoir mais ku si topp mooy chef de l'opposition waaw kooku nangalu ma ko kooku aussi dafa am lu ko war en tant que chef de l'opposition defu ko mais maa ngi ñëw Khalifa Sall euh, Karim Wade ba nit ñi naan Karim m'a appelé Karim m'a appelé Karim m'a appelé vous de ça je pense am na ku si bindoon woy Karim m'a appelé Karim m'a appelé Karim aussi waxuma ko woon Karim m'appelait aussi waxuma ko woon Karim ba mu demee ba léegi jógewu fi ñëwu fi à bientôt la ñuy wax à biento moo tax keroog ba mu bindee à bientôt ñu toog ba si yàgg dégg ñu sama benn xarit woo ma ne ma mbaadu à bientôt Karim bi nga ñu may ma ne ko déet non dinaa ñëw dinaa wax. Karim Wade fu ñu toogee ñun ba ñuy defendre Karim Wade on était député de Benno Bokk Yaakaar bu leen fàtte 2012 c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar moo gagné woon élection yi fa laa nekkoon député damay defendre Karim Wade. ñu koy interdire de sortie du territoire national sur des mesures administratives boobu j'étais député de Benno Bokk Yaakaar lii ñu def ni yàgg na si ñun de fu ñu demee plateau wax réhabilitation pourquoi waxuma tamit waxu dossier amul kenn ku ma si wax waxu dossier am parce que man je suis un homme véridique mais les violations de ces droits violations flagrantes ay procès yoo xamante ne tribunal international boo ko yóbbul mu ne leen lii lan la fan ban dëkk la am on naa dit nañ ko réhabilité parce que suñu bàyyee kenn muy defal defal nit ñi procès nu mu leen neexee su ñu bàyyee kenn muy éliminer ku ne lu ko neexee ba ma koy wax boobu waxuñu sax waxu kaaw Sonko parce que j'avais dit que foofu lañ nara jëm waxuñu waxu kaawu Khalifa Sall foofu lañ commencé ñun on l'a défendu loolu la cër boobu laa am si ñoom ñu am lu ñuy xaar si ñoom parce que yow da nekk fële ñu lay defendre fii yaa ngi si ker gi fële am ñu nekk fii si naaj bi te joxoo leen dara sequ leen dara sequ leen ay joxante sequ leen dara ànduñu yow ay principe moo tax ñu défendre ko ñooñu dafa am cër bu ñuy xaar si ñoom dañ leen a jox cër si réew mi cër boobu yàlla moo leen ko jox kenn mënu ko dindi si ñoom waaye cër boobu dafa am fu ñu jugee ba yegg fa en 2009 su amul woon une large coalition autour de kalifa Sall pour jàppale ko fii si dakaar du mës a nekk maire bay bay fal ay maire bay teg ay maire il y avait eu un esprit de dépassement les gens se sont mobilisés fortement pour mu nekk maire de dakaar en mille 2014 Ousmane Sonko créé PASTEF ñetti at après mooy ñetti at ñun yu ñu am te ñun sax suñu ñetti at yi moom soo leen si génne présidentielle bi ba nga xamante ne nous n'avions pas voix au chapitre parce que duñu candidat génne si mbas mi nga xamante ne ñu dem fenn daanaka un an lañ def mun na wax sax motu ko te jot nañ si nag def dëkk yu bëri Sénégal si nekk à l' international nekk nañ dans les cinq départements du Sénégal. nekk nañ dans les huit départements de la diaspora ci sant yàlla nag di avancé à notre rythme avec nos moyens te yaakaar ko ci Sénégalais yi en 2014 en 2014 ba mu créé parti trois ans après ñu jëm élection législative il a fallu le soutien ñu bëri notamment Imam Mbaye Niang ñu ñoo defandoo woon douzième législature mu nekk ku dëggu mu nekk ku am fit mu nekk ku taxawu woon askan bi ñoom ñëpp dañu ñëwoon ànd ak Ousmane Sonko pour ñu dem élection 2017 plus fort reste lañ fa jëlee. plus fort maanaam dañoo joxe ba pare ñu xool ñu amagul ku si gën a féete ku si gën a baax fifra ñu jox ko maanaam su doon dañu wax rek ñu mat lañuy am moom du dem du nekk député donc tey su nekkee tollee fii dafa am fu mu jaaroon maanaam ñun tolluñu ñoom fu ñu tollu waaye ñoom tolloon nañ fu ñu toll lu leer laa lay wax nag donc mbir mi du mbirum man maa féetee wala kee moo féetee ba ngay féetee dafa am ñoo nekkaloon ñu bàyyi la nga dem soo féetee tey ne da ngay former léegi gouvernement ci opposition bi xool ñuy dugg def ay visa def ay ticket d'entrée ñu ñi war a kéemaande ah est-ce que man kërëb kërëb loolu personne ne l'accepte personne ne l'acceptera ce qui s'est passé est très simple est très clair ñun dañoo mës wax il faut une large coalition de l'opposition si li si locales yi parce que locales yi dama ne c'est une question de localité plus nit ñi di di di eng di agrégé ñuy dugal ay nit ñu ànd plus ñu am chance pour gagner j'ai toujours dit qu'il y a les oppositions dama leen ngeen dégluwaat lu may wax donc man mënuma bañ ay nit ne dañuy ànd sama yoon yi su dee am ngeen affinité politique lépp moo leen boole yéen daal macha allah seen idéologie seen lépp moom bokk na ah su leen neexee ngeen ànd mais loolu ku ne xëy ku xam ku xam boote doomu parce que j'ai dit les oppositions <laughs> mais c'est une diversité l'opposition c'est une diversité kii mën a taxaw ne kay taxaw ne peuple bi mooy choisir il faut pas aussi tamit dans ça ñu bañ si jiital peuple bi peuple bi aussi il faut pas que ñu génn leen si moo tax parfois suñu naan ah euh, lii suñ ko defoon wala et cetera mën a loolu dëgg la waaye nag <laughs> peuple bi aussi tamit day sanctionné rek su sanctionné rek mbir yi su sanctionné rek mbir yi donc ñun dañ mës yaakaar ni dañu war a dem large coalition de l'opposition large coalition si locale yi surtout au niveau des communes au niveau des communes si localité yi si boppam parce que localité yi réalité localité yi mooy lan réalité localité yi du du politique yi rek de réalité locale c'est des mouvements sociaux aussi c'est des mouvements citoyens c'est des gens yoo xam ne seen gox lañ nekk di liggéeyal seen gox bëgg nekk maire soxla mairie bi ñu mérité tamit mérité nekk maire aussi parce que du c'est pas que dañuy ñun ñu dañuy def politique rek euh, wala ñeneen ñi kii non non non ñun ñoo war a affaire yi déedéet mais su dee ñoom ñëpp dañoo bëgg a remplacer ñi fi nekk ba pare war nañ jox chance ñëpp ñu mën a xool les meilleurs profils dans les communes pour ñu mën a gagner les élections loolu moo nekkoon suñu yitte moo tax ba fi Khalifa Sall ñëwee fii wax waxu mu ngi xool nu ñuy dajale ñu ngi ak ñu ànd ñu ne ah macha allah parce que dañuy ñoo koy jiite ñun on est trop petit pour ça ñooñu suñuy kilifa lañu ñu jiite wuñ ay ñun dañu bëgg rek mbir yi dox man FRN Front de Résistance Nationale xam na ñii xam nañ fa bokk mais duma dem sax réunion yi c'est pas parce que bugguma dem seen réunion mais fu ma demee plateau défendre ñoom lu ñu wax parce que pour ma ñu ma gën a aguerrir ñoo fa nekk ay Mamadou Diop Decroix ñëw fa di di di ruube amul sens nañu doxal rek pour Sénégal après ku ne wuti nag ku ne wuti les questions de principe ñu bàyyi ñu am expérience ñu jiite ko y a pas problème après ku ne wuti nag parce que nag kenn moomul kenn donc ba mu ñëwee wax loolu ah dañ si d' accord xam ñu ne ah ñun amatul lu ñuy def suñu grand bi mu ngi koy gérer Ousmane Sonko ba mu fi ñëwee dégg ngeen ko yéen ñëpp mu wax ne dañoo war a ànd dégg ngeen ko yéen ñëpp dégg ngeen ñu ne ah alhamdulilah c' le chef de l' opposition donc moom mu ngi koy dox. ainsi de suite donc ñëpp di wax waxu large coalition man suñu sama sama suñu mouvement suñu def réunion ñu ne ma mais. Euh, fu ñu toll si coalition bi affaire ndax ki ma ne non nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy liggéey parce que ñun ñu ngi xaar ñu liggéey ko ñun amuñu pour sax xam nan lañ koy no parce que yomb na dajale ñëpp ne léegi fexe leen ngeen bokk nekk si commune yi après mu am ay arbitrage s'il le faut ñu xool les meilleurs profils ñu teg leen pour l'intérêt du Sénégal ñu avancer yomb na donc ñu toog di leen déglu ñu dem ba benn moment ñu toll avancer si rétrécir les initiatives parce que bëri woon na Abdoul mbay aussi fàtt naa ko cité moom it am ak waa de et cetera am am initiative boobu ñeneen ak ñeneen ñooñu tamit suñuy mag lañu suñu kilifa lañu. ñu dem ba waxtaan yi di dem di dem di dem ba finalement ñu dajaloo rétrécir affaire yi jël projet boobu teg ko si ñaari loxo loxo Abdoul mbay ak Khalifa Sall. ñoom ñaar ñu war a def la large coalition de l'opposition ah ñu am si yaakaar bataay yi ñu dégg ñi ñi di jóg di annoncé way d'ailleurs sax on vous avait promis une large coalition de l'opposition loolu léegi commencé na léegi léegi léegi dans les prochaines heures dinañ ko teg dans les prochaines heures loolu mooy maanaam togg nañ ko euh, yus nañ xorom beeg kii bi xaw ma nu ñu toggee ceebu jën ah maanaam lépp mat na yàq bi rek moo res mooy dans les prochaines heures. waaw ma ne waaw lu ñuy war a yàq noonu xanaa dans les prochaines heures ñu koy war a lekk dinañ xam ne ñu ngi togg au moins nii lay demee. et on se rend que en réalité effectivement am na lu ñu togg mais togg bi du large coalition de l'opposition parce que l'erreur c'est quoi dugal dans la tête des Sénégalais. que ñun opposition bi dañuy dajaloo léegi nag ab Thierno Bocoum bu taxaw naan euh, non non man daa bu affaire bi taxawee ba mot na nga ne non man d'accord ñu ne ah gis ngeen bëggul opposition mu ngi tas opposition bi ñii la Macky di yebal yaa yaa ngi nii ñu ko ñu ne way euh, <laughs> xam nga ñun dañuy sant yàlla boobu parenthèse bu may dugal la dama génnee parti réew mi dafa am ñu bëri ñoo xamante ne dañu wër réseaux sociaux yi dem si rédaction yi yéen ñii xam ngeen si dara ñu ne ah yéen coow lii yëpp bu leen kii parce que kii dafa deal ak Macky Sall dafay dem si Macky moom moo ko yónni mu am benn sëriñ sëriñ la tuddee boppam bopp xam naa mu may dégg mu dem si benn journal fa su ma su ma juumul euh, dakaar Actu la woon mu ne mu waat ne. man mii de dañ maa jënd te liñ ma proposé moom proposé dañ ko ko mu bañ te nee na kilifa diine la kilifa la. kooku fii may wax ak yéen moom mooy partage publication Khalifa Sall yi parfois que mu juum envoyé ma benn ne ko sëñ bi bu ma tooñ euh, publication Macky Sall mu juum envoyé ma moom moo koy partagé fu mu nii man maa ngi si opposition bi. benn jour suñu benn responsable di waxtaan ak kenn si Facebook bi mu tagge ma parce que man li may publier Facebook yëpp bëri ma tànk Facebook parce que nag <laughs> bari nañu trop lu ñuy def mais ma tëdd sama lal rek gis mu tagge ma ma bës gis ko muy discuter ak kenn kooku ne ko tey ngaa tey boobu ñu ngi soog a génn réew tey ngaa tey parce que kii da ngeen di ànd ak moom di xër-xëri waaye ñëpp xam nañ fan la jëm ñépp xam nañ fan la jëm mu wax Macky la jëm tey ngaa tey yaa ngi xëbër xëbër boobu ba léegi nga tontu kooku ne ko man ngi koy giñ si alxuraan Idrissa Seck bi nga àndal mu dem rejoindre Macky Sall moo gën a yomb Thierno Bocoum bi ma àndal dem rejoindre Macky Sall ba ma gisee loolu maa ngi jéggalu di ko wax waaye sama rongoñ dafa wadd li tax mu wadd parce que kooku waxul ak man moom xamul lu ma génne sax damaa génn mu génn parce que dafa ma xam. waxuma ak moom discuté wu ma ak moom newuma ko duma ma mës a dem si Macky Sall musuma ko jox assurance mu waat si alxuraan loolu lay sante yàlla mais accusation sosal nit wax tilimal nit ki jéem a indi téeréer way ah kii da ñam na kii kay dootul kii léegi damay fomp lii pour ñooñu ñu xool ma si caméra man duma ku ñuy xoqatal Thierno Bocoum du ku ñuy xoqatal yaru na dëgg la parce que dañ ma yar teey na dëgg la parce que dañ ma see yar du tooñ dëgg la parce que dañ ma see yar waaye ragaluñu ragaluñu fi combat bu fi mënti am ñoo nekk ci au devant au jour ba ñuy faat ndem si yàlla ma Mamadou Diop mu ma fekk commissariat police gars yi dañ ma doon wër ma ñëw fekk fa ñoo xamante ne ñoo àndoon maa ngi leen di nuyu de passage. ma ñëw ñu ne ma yaay Thierno boo ko mën a waaw ñu ne ma dindi sa ceinture. dindi say dàll. jël ma jëlaale sama garde corps bu ma àndaloon dugal si biir giri yi si télévision wu si télévision wu. Euh, post bi poste boobu nekk si kii bi si lañ yëg na ne am na am na benn étudiant bu ñu faat si saa si ñun dañuy wax ne alhamdulilahi rabbil alamin parce que ñun combat bu taxawee ñooy nekk si kanam mën na am ñun ñoo waroon jaar foofu waaye suñ fa jaaroo nit de benn yoon lay doon suñ demee layoo rek te ñu ngi liggéey tous les jours nag pour layoo ba baax tous les jours loolu moo ñu amal solo saaga wax lu ñaaw mais dama ko dul sax liir nee leen affaire bi si lal ba dem tëdd nelaw yeewu tiim sa bàmmeel ba yàlla xam lu muy def donc ñu jël affaire yi teg ko si loxo euh, Abdoul mbey ak Khalifa Sall dégg ngeen sànq mën na leen ñu wax dans les prochaines heures ndekete ñoom dañoo dem def seen coalition ñoom ñett laay waxal parce que sëñ Moustapha si tudduma ko xam nga li tax moom si boppam moo ne dañoo ñëw ne ko ñëwal nga bokk si coalition boo xamante ne ne PDS la. Euh, Khalifa Sall la ak dama turi sa tudd parce que waxuma appareil yi Khalifa Sall wax Ousmane Sonko ñoom ñoo ko xëcc maanaam wut nañ kaat xam naa peut-être dañuy soxla woon ay ñaan parce que lu ñu def lu rëy la nga jotee ñoom def nañ seen kaat seen kii di def seen réunion banaan naan eh, léegi rek mu mu ñàkk maanaam lu muy signifier mooy ñun dañuy def benn gouvernement dañuy def benn gouvernement boo xam ne da ñu may ñu lancé ko ba pare ne ñun ñooy gouvernement bi ñun la maanaam lu loo xamante ne ne Macky Sall xañuñu ko te mënuñu koo xañ mooy bokk ci opposition bi jàkkaarloo ak moom ñoom ñu ne ñoom ñooy tànn ñan la ñan ñoo war a bokk parce que li tax ma wax loolu mooy. su ñu tànnee ba pare def lu ñuy def ba pare ku fi taxaw di wax ñu ne la waaye demal si opposition bi xanaa si màcc nga nekk loolu la ñuy wax. loolu la ñu bëggoon dugal si bopp donc large coalition boobu ngeen doon dégg ñoom ñu tuddee ko large coalition nekkate c'est une coalition de pression. ce n'est pas une coalition électorale c'est une coalition de pression. nit ñi xaal coalition électorale. ñuy xaar une démarche inclusive ñuy xaar ñu boole ñëpp suñu amoon cinq cent 547 leaders représentant les 547 communes on doit pouvoir les mobiliser tous pour ñu jëlee fi Macky Sall mais du ñeenti nit wala ñeenti parti bien que nag xeebuma seen doole de xeebuma ko wax naa leen léegi nag jox naa leen seen cër mais mbir mi du ay parti du ay appareil sénégalais yi ñooy voté